teggin ne yàlla rek lañ war a jaamu waaye buñu nee jaamu sa borom kër mooy dab bànneex dañ ci jub soxna si nag moom it am na yu ko war ci borom kër gi moo tax yàlla dikku lu baree baree baree bare ci biir sëy jigéen su rafetalee sëyam mooy buntu àjjanaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci xadis bi naa al mar'atu ida sallat xamsaha wa saamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ataat zawjaha fal tadxul min ay abwaabil janata shaat jigéenu jullit jullee julli juróomam woor weeru kooram sàmm pëyam topp borom këram ñu ubbil ko buntu aljana yi mu duggee ci buntu bu ko neex loolu jigéenu jullit rek la ko yàlla dik muy lu am sol julli julli juróom wor wer koor sam sa pëy top sa borom keur ci lu neex yàlla ñu ubbi la bunti aljanna te ngeen xam aljanna du lu ndaw ndax ñun ñëpp fa lañ bëgga dem yàlla nañ fa yàlla yu suñu yaa aisha radiyallahu anha sahaba yi neenañ mus nañ ko deg mu ne ya yaa maasara nisaai law ta'lamna bi xaqi azwajikunna alayhinna la jaalat almaratu minkunna tasmaxu alxubbaara ala xadamay zawjiha bi xaddi wajhiha ya aisha neena ay yéen sama mbokk jigéen ñi ay bu ngeen xamone àq yi ngeen ameel seen borom kër yi nee na di ngeen sëgg jël seeni lex di ko fompe seen tànki borom kër yi ndaxte ab lex la jigéen gën a fonk xam nga ni booy defaru sa kanam li nga ciy daj doo ko daj ci sa tànk yi kanam la jigéen gën a fonk ab picc rek bu la daloon fii fu ne di nga fa dem di wër ban chirle moo ci baax lan moo war a dindi di nga ci sonn lool ndax jigéen bu sañoon kanam gi dara du ci ne kon bu demee ba ni seen kanam yi di ngeen jël seen lex yi fompake seen tànki borom kër yi kon loolu ndawul ndax yaa Aïcha nee na kenn ci yéen su xamoon ak borom këram ci moom dina jël ab lexam di ko fompe tanki borom kërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba asma bintu yazid ibnu sakan ñëwé ca mom diko jambat nan ko goor ñi buñu démé demee buñu ñëwé ñom dañ ñoo wax ni buñ ca deeyee kenn du leen sang kenn du leen jullee yalla dañ di jégal seen bakkar yépp duggal leen aljanna té ñun ñoo fi tok di jur seen doomi buñ ñëwé ñoy fajj seen dag dag yi ñoo ñun ñoo leen di top ci ci lu né di joxe ay ndox ak yépp wa légui ñun luy suñu fay yonent bi niko ko mar'ati husnu tabaul seen rafetu ni sëyin seen jihad ku ci rafetal sa sey tuyaa ba ñi demoon xare ji am jooju ngay am jihaadul mar'ati xusnu tabaaw an abi hurayra radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yaxilu lil mar'a an tasuuma wa zawjuha shaahidun illa bi izni koor ni mu neexe yàlla ak ni mu ko fonke waaye jënd jigéen amul sañ-sañu xëy woor rek woor bu dul wooru farata nag xëy woor te du dafa ñaan borom këram ndigal ba mu may ko ko ndax ndax xoolal su tee moom daa bëgg bu tisbaar jotee yow boo jullee ba noppi moom day bëgg nga sol lu woyof lu nooy sangu ba set xeeñ lu neex toog ci wetam di ko attaayaal bu dee moo ko gënal nag ah da nga war bàyyi koor ga nag defal ko loolu muy ëpp tuyaaba ci nga dem woor kon ñom seen ak ndawul bu dee looloo ko gënal nak bayyi fa koor ga te so añee nga défi loola ndax loola so woré do ko man waye su la mayé nak ndigal ci nga wor ga doog wu wu bu la ko mayul taggu wo ko ba waxtu wa jot mu sant la lool da ngay dag koor ga dem défi lo kon daganul ci benn jigéenu julit mu xey wor ludul da dafa am ndigalu borom këram soxna so xamné yi ta borom kër woo na la ci lalam nga gantal ko seytaane dugg la ba nga gantal ko ba nga koy tëkku ba nga koy ñaan lu mu amul ndax nak bari na ci ño xamné bala ño ñaan dara dañoo dañoo yëg seenu lal li wax santage sama nangam ba sama natt ba sama lii ba sama bor ba sama lii sama laa ndax xam nga ni foofa moom xëy na fa nga amee pouvoir yooyu dafa dafa doy waar doy waar yu xañ jigéen sens la ko mën a xañ tuyaaba loola saxee ci yow nga di ko def te xëy na fajaluñ la soxla booba mën nga kaa xañ sa bopp te boo ko xañee sa bopp lépp lu yàlla bind rëbb ba karamu lay jégg baa nga koy nangul moo tax bokk na ci lii may sens jigéen jox ko ay tuyaaba yu bari mooy mu nekk latifa ala saririha nooy lewet yomba jot rawatina ci lalam jigéenu jullit day fexe ba jëkkëram buy jot ci moom daj benn coono du am lu koy déranger saa yu ko a jot ci moom na yomb na yomb ba mel ni man mu fekkoon fii kaas ndox mu sedd ma naan am benn jafe loolu bokk na ci li koy may sens bokk na ci li koy jox tuyaaba ndax ngeen gisee ñiy takk sax takkkat yi ñu ngi takk xoolal muus muus ku mën a jaboot muus du jur mukk benn doom muy indi son hmm. ngeen muus muus du jur mukk benn a jaboot i nàngam rek ndax kenn ci yéen mus naa gis coggalu muus boo ko ci mos a gis génneel sàllalal sa loxoon kenn mus naa gis coggalu muus muy dem ànd ak coggal ay doom laa wax ay doomam maanaam ak coggal mooy ay doomam yu bari muus muy dem rek ànd ak lu mat fukki doomam yoo xam ne am nañu juróomi fan baa juróom benn fan baa juróom ñaar ko ci mus mës a gis doo ko moo ne moom li muy jur de ni mu baree waaye ndax kenn ci yéen du dégg néeg bu ami seng ngeew ngeew ngeew ngeew kurkur ji dal ca bee miir dal ca bee miir dal ca bee seng muus bu góor balaa jot muus bu jigéen bi lu ne lay daj seng yépp a yàq ñépp a koy yëg moo tax du am mukk doom yi bar doom yi lu ñu bari bari defal ci sànni ca mbalit ma yóbbul ginnaaw garage yóbbul fee rek ngay di sànni ji ko du barkeel waaye xoole kinaara foo gis kinaara benn doom yooyu rek buñ ko ci takkee dafa am solo jigéen nooy yomba jot rawatina